waa ñu ngi taxaw ak Seus tey moo fi woo woote xam-xamu hip hop ñu laaj ko mu expliquer ñu tey lu waral jotaay bi ñu ñëw si Seus yaa ñu woo ñëw nan loo ñuy jox. waa salaamaaleykum maa ngi lay bëggee ji der ci déplacement bi ak sa gars yi nga àndal yëpp donc c'est Seus Reuk euh, artiste en même temps MC culture de la culture hip hop donc ñu ànd fi tey nit ñi pour le pour la connaissance hip hop vu que dañuy xool def benn diagnostic xool Sénégal que ne. il euh, y a la présence des sons vidéo albums mixtape et cetera mais un peu dañuy gis que ne la connaissance dafa dañ ko dañ ko resté en rade donc depuis maa ngi ci ay gëstu di jéem comprendre li ñu nekk ni lan la c'est la c'est quoi la culture c'est quoi la conscience collective lan moo ko taxoon jóg lan moo tax ñu ko doon def instant bi c'est un peu c'est diamétralement opposé donc si lañ am xas xam-xam bu ndaw ñu ne pourquoi ñu partager ko pourquoi pas ñu partager ko ak nit ñi nga xam ne ñu soit yaa ngi doogee dugg si rab bi wala yaa ngi si hip hop di si œuvre te peut-être am na affaire yoo comprendre et cetera. bu ñu hip hop dañ naan la hip bi c'est la connaissance mooy xam-xam bi hop mooy mouvement mooy support bi nga koy teg donc dañ toll Sénégal bi nga xam ne ñoom il préfère support bi que gis loolu noonu ñu ne léegi pourquoi pas ñu fii nii woor nit ñi nga xam ne intéressé na ñëw ñu jëm a partagé jàngale mais partagé ak xam-xam bu ndaw bi ñu am ak ñoom pour ñu xam ne bien vrai que le support mais la connaissance moom moo jiitu loolu noonu yëpp te à la connaissance yi nga war xamee nan defee sa support nan defee sa communication nan taxawee nekk leader ci côté monde bi ñu xam ne kat kii nii activiste boo xam ne la acteur la ci biir hip bi donc loolu woo si ji bees woo si euh, grand Amadou Fall ba Matador ñëpp ñu nekk si biir hip hop bi pas man mais ñi ñëw ñu partager le peu de savoir bi ñu am ak jeunesse ñu xam ne kat bien vrai que fën bi ci la bokk concert rap et mais yaa lu jiitu moom mooy la connaissance quoi. am na solo nga woo ci grand bu mel ni Jojo moom it bu ñëw partager expérience bu mu am ak ndaw ñi mais est-ce que lii bi mooy premier édition wala. waaw li mooy première édition ñu ngi koy doogay def nii nii léegi grand jojo est-ce que décroché ko yomboon na wala parce que grand yi mel ni yëkkati leen yombul. waaw waaw yomb na yombul ndax xam nga grand la boo xam ne soit xamante wuñu woon mais ba ma fexee ba dem gàlleem waxtaan ak moom ko sa premier conseil bi nga njëkk def sa premier conférence bi nga njëkk a def ak fekk ma nekk booy maa nga fa woon dafa dafa tiit ne ma ah bon ma ne ko waaw ma ne ko lii dafa maa mus a dafa maa mus a soxal si la nag am euh, bëggu carrément ñëw teew ci événement bi. au finish moom moo mujj di woo sax di mu woo est-ce que le moral est bon est-ce que yaa ngi préparé affaire yi def ko affaire boppam. moo tax peut lim ñëw nii di expliquer ma mënoon naa ñëw expliquer ko mais suñu grand la bi nga xam ne ñoom moo fi nekkoon instant boobu noonu. donc c' est très normal bu ñu duggee si hip hop Galsen ma bàyyi lépp jox ko mu expliquer nit ñi donc moom mooy war na nekkatul sama affaire mais affaire u hip hop bi la di wax ne grand bu bien la ak ñeneen ak ñeneen ay Jibé say Amadou Fall ba ay euh, Matador Badou Kane euh, Mama Faye ñoom ñëpp jàpp si projet bi comme si seen projet la donc moo tax nekkatul sama affaire mais affaire u hip hop Galsen la. mais est ce que lii Dakar la yem donte daan nañ la gis ngay tourner si région yi di waxtaan ci xam-xamu hip hop. bi mooy première fois ñu gis ko dakaar est-ce que day continuer di dem ba tey ci région yi walla mooy loolu. voilà si loolu lañ bëgg a jëm moom mooy ni ñuy fexee ba mu dem ci quatorze régions yëpp lii juste benn préface la boo xam ne dañ ko bëgg a pour ñu mun a am apport soutien yeneen gars yi nga xam ne peut-être foog nga preuve pour ñu ànd ak yow loolu lañ bëgg bu ñu paree quatorze régions lañ bëgg dem. fépp fuy nit di ñooy Sénégal bugg nañu fa dem jëm def fa conférence def fa bloc party gën a expliquer carrément li nga xam ne nit ñi ñu ngi koy def soit xamoo ko wala di di ci dugal nit ñi li nga xam ne nit ñi dañuy xeeb ëllëg que ne du loolu noonu mais juste la connaissance la bi nga xam ne ku ko découvrir di nga xam ne lii c'est positif quoi daa so sew ñu ngi lay bëgg Black ji di ménagère sës rek euh, tey ñuy fas yéene waxtaan ak ñi fi nekk ci xam-xamu hip hop moom mu am ko feesal ko dell ñu ñëw waxtaan ak moom pour moom it ban message lay laajee gars yi pour ñi nga xam ne ñëwuñu ñu mën koo dégg fii nii ci Equivox parce que moom message la parce que xam na hip hop yàgg na ci yàgg na ko dund seen kuréel bi ñoom ñëpp donte ay borom xam-xam lañ ci hip hop mais mooy seen ménagère faaw ñu laaj ko moom it mu sànni si ay kàddu. Hmm. waaw bon voilà d' abord di nuyu ñëpp euh, di wax gars yi naan salaamaaleykum à tous les followers de Equivox donc euh, tey nous sommes à la MCU euh, ci programme hip hop bi. donc euh, ànd ki nga xam ne mooy Sës Brek l'artiste euh, le professeur avec des invités comme Cheikh Omar Diagne euh, professeur et aussi chercheur et aussi Mamène Jojo bu Yatfou donc in n'est plus a présenter à travers le hip hop Galsen donc tey programme la woon boo xam ne ñu ngi ko dippee xam-xamu hip hop bu ñu nee xam-xamu hip hop nag ça veut pas dire que ñun ñoo am xam-xam bi rek mais y des gens yoo xam ne am nañ xam-xam. mais xëy na amuñu opportunité wu pour euh, teg programme bi wala soit seen i xat-xat la ñu nekk donc on a su que bon euh, ñun ay xale lañ te ñu ngi ci yoon pourquoi pas ñu def benn affaire boo xam ne dinañ ci mën a woo ñi nga xam ne tey même bu fekkee amuñu temps ñu ñëw def benn passage bu ndaw waxtaan def benn assise pour wax gars yi ne leen hip hop nekkatul uniquement jël. mic rek di wax mais ñu ngi ci beneen niveau ñu ngi ci beneen tournure parce que fexe koo formaliser ba nit ñi tey ci jëriñu di ko dugal ci school yi di ko dugal ci yenn euh, activités yi di ko dugal fu bari foo xam ne tey fu ñu foogutoon hip hop la donc à grosso euh, benn formation boo xam ne dañuy délibéré ay attestation yoo xam ne sous forme de culture la conscience collective produit marketing pour ñu mën a xam rek euh, formaliser encore une fois le hip hop won gars yi que ne hip hop tey it's all about respect hip hop it's all about intelligence hip hop it's all about peace donc loolu yëpp boo ko defee ci regroupe que tey hip mi ngi ci beneen niveau mi ngi ci beneen tournure mi ngi ci beneen prestige à ce que tey hip hop tey euh, ñu ngi koy yóbbu ci beneen niveau boo xam ne sunu grand yi am na fu ñu ko yóbboon mais tey bëgg nañ ko yóbbu ak yeneen gars yi nga xam ne tey ñu ngi fi donc di wax gars yi na leen rek tey c'est l'appel encore une fois du 24 au 26 la nous sommes au premier jour donc di wax gars yi na leen nañu ñëw ñu def le maximum ba affaire mën a jaar yoon quoi. am na solo ñu ngi lay bégg. jaajëf. dégg dem ci région yi dem ci école dem ci fi nga xam ne moom mooy euh, prison ko fa boo ko defee ñu. les gars dafa tuddee lii si mais dafa nice si ah, boobu dafa nice euh, ay xale yu tey ñoo def lii ba xam nga. kon daal di baax a baax a baax. apporté une hip hop. mënoon na ne sociologue laa damay dem toog sama cabinet sa émission sa disponibilité sa engagement merci beaucoup vraiment mérité na lii quoi. kontaan nañu vraiment ci sa participation vraiment kontaan nañu bu bon merci beaucoup ça c' est ah li moom. lii dafa nice euh, lii mooy Pape Gall Sène lii mooy peace lii mooy love lii mooy having fun parce que après euh, le travail partout. donc di prôné euh, hip hop bu rafet. Johnny hip hop. Ah, Diem tey fu mu toll ci wàllu solo ak yenn affaire yi tey kontaan nañu vraiment. jaajëf merci beaucoup sonal nañu ci trois jours yi donc kontaan nañu vraiment. merci beaucoup. c'est un immense plaisir. merci beaucoup kontaan nañu vraiment. tout ça donc grand Joe. yaa ngi ko jox Jojo wala waaw donc bàyyi ñoom ñaar ñoo <laughs> benn la. waaw waaw benn la ñaari ñaari ñaari coono ñoo ko nekk. merci beaucoup Amath jaajëf. merci beaucoup. ñu ngi woon nii si am na ñoo xam ne ba léegi mu ngi leen intéressé ci merci beaucoup Yaye Sy Fall et monsieur Fall. merci beaucoup. merci beaucoup Seydou Ndongo. merci beaucoup. on est content de toi Baby. Mr. Baby, il est kii tey moom moo yor euh, marque bi ñuy wax wax gàddu alors tey euh, wax gàddu boo ko déggee mooy maanaam porteur du wax wala. daanaka il faut dañoo nangu sa voix. yaa ngi yow sër. maa ngi fàttali ñu ne ko yéen ñëw wala kaala. yow soo di kaala. dëkk bi ñëwee. yaa. Now we got big things. We got big, big, we got big things. We got big, big, we got big things. We got big, big, we got big things. We got big, big, we got big things. My colors. daa ragal seen papa si paam lay tëdd yu ma yeah okay yeah well done I know what I say here yeah say how when I say here yeah say how when I say here yeah say how

we defeat niggas who get to the least. Water on beat, flooded the beach. Did a long time, niggas brought me no sleep. My aunt's carry out. She dream we can pass all day. Come, I don't feel like an animo, so let's go back home. In the trouble, continue trouble. So I'm glad that I'm not being normal. All you do is make these niggas get out of. Baby said it did it, it's the Bahama. We clear your breath, man, and take a fix. I'm niggas who know they bitches and how they play. Standing, it's on their face. Put anybody in it.